Thank you. pare ay gàllaaj noonu la face série de ngoloñ fële taxaw moom yegg si na ña ngay léewtoo simple la simple la simple la waaw général ak la face série de ngoloñ général moo leen wan ginnaaw noonu la face série de ngoloñ moo kanam dégg waa général la daan nañ la l'avance série dongo nañ ah sëriñ bi da ko ne woon baa bi deuxième bi daan lijjanti na ko ko na lijjanti ko xam naa bi muy wax combat bi day gaaw deuxième mi-temps bee taxaw. waaw dama juum. wax dëgg yàlla Pape Mbaye suma kilifa la suma grand la suma lépp nga wax dëgg yàlla nit ku baax son sonn sumay bis di ma jàppale ci làmb ak lu dul làmb kon nag bu xëylee bis bi tey nii moom vie xam nga suma grand ma Diouf yaa ngi ñëw teew ci Kaolack ak champion ba fekk ci mel ni leket léegi jaan gaayam ñëw teew xam dafa am solo ñu ñuy génn di ñëw ci bu ko defee làmb ci Sénégal neex daal waaw bu ñu ko defee yamale ko rek quoi il faut ñuy génn da ci am solo bëri na ay combat yu mbëre fii wala waaw sama combat Brésil fii laa bëre yàlla may fi ndam sama combat Baboy fii laa bëre yàlla may ko ndam bëri naa fi ñaari combat am naa fi victoire naa fi défaite mel ni ñoom nag dañuy dund làmb oh, la yàlla sama borom gën a taxaw yaa ngi dégg mbëri nekk nan nangoo jël mbëri na ci àll bi bëri ndax lépp Sénégal la rek yaa ngi dégg lambo dafa toll foo xamante ne nekk affaire de palmarès ay maa def lii kii du ma moom maa raw kii kii du ma bëre ak moom nekkatul loolu Baba Ndione pare na pare pour may waa Kaolack chance. non dégg nga lu ma am naa combat le 25 décembre laay bëre maa xoyantaan Dakar incha allah rabi yàlla dama fa may ndam kon kon ma jox ma bëre. waaw man liggéey naa li may job du pour xoyantaan quoi dafa am lu mu ci am rek jox ko wàllam xoolal nañ incha allah. pour xoyantaan mais yaa ngi waaj combat boobu parce que combat bu waa Sénégal di xaar. combat bu mën a ñor ndax dafa yàqu woon ci ay détails yi ñàkk fayda il fallait que ñu leeral mënumaa jël moom moo roi des arènes bu Gambie mais bu ñëwee fii incha allah li yàq làmb Gambie yàq ko Sénégal. nga am nga loo ci naqari mu demee woon. moo tax ma jëlaat ko moo tax ma damay bëriwaat waxee waxuma ko ma temps ba ni may waxee bu la neexee layal jamaïcain waxaale ma moom sax dana dana dana kii rek fayantaa ma nekk ay mu métti na ñëw rek incha allah ñu leeral bu jeex. amul yeneen combat à part combat boobu bu ñu lay wax. amoon naa maag Zarko na yaa ngi dégg maag Zarko taxawoon na mais doo ba ci biir. promoteur la joxoon na leen avance. ñun ñëpp la avance na libéré nañu daa joxe na libéré nañu. may na leen avance. ah maa xëy rek si sunu lamb ngi ne promoteur bi ne libéré na ba lépp. doo boo ko téléphone doo koy caméra tukaage doo watul kenn waa yi nga xamante ni moo ko nekkaloon fi yor yor signature kayit yi waaye tamit ku koy woo du la jël mënatuñoo jot kenn nga libéré ñu mais dara xëy na yaa ngi dégg combat ngi sama kanam. mais loolu tamit est ce que lu journal yi wax tamit kese est ce que du moom moo leen war a libéré wala journal yi nga mën a déglu. man daal li ma gëm mooy jàmbaar nit ki boo defee ak moom signature ay contrat ay këyit yaa ngi dégg ba am loo gën a teg si loxoom loo gën a teg si loxoom mbër yëpp ku ne moo gën a jox dara ñëpp a ci kii kenn dafa dara dara non non ku ne dañoo ñamal rek jox ko avance daal am na ñamal quoi mais boobu ba léegi lettuñu ñu firiwuñu ñu quoi vraiment te moom jeune la nekk États-Unis yaa ngi dégg tey ñun moom mu ñëw fii jënd licence nekk promoteur di dëgg làmb daf ñu neex ñun ndax doomu Sénégal la comme ñun mais affaire yi moom ni mu doxee moom ko neexuma quoi vraiment annoncé baam mu goon am na combat yaa ngi dégg ak Zarko mu am lu mu def sol ko am lu ma jox ba léegi affaire ndiil nii kenn xamul lan la quoi vraiment loolu moom neexuma quoi bu fekkee ne dafa na ci ay ndog-ndog maa ngi ko ñaan la sombre yàlla ko yàlla sombre teg ndax moo gën nit ku baax la waaw Sénégal la vraiment bëgg na sport Sénégal quoi. mais yow bëgg nga mu yeggali combat boobu mu la jox. waaye bu baax a baax pourquoi ko man bëgguma lekk riba am na lu mu jot a ñamal ñaa ngi dégg loolu damaa bëgg mu leew li koy lawal mooy mu bëre Zarko mu leew mais le combat bi yàqu na amatul léegi sama combat xoyantaan lay préparé 25 décembre incha allah. France ñu ngi fay. a ah, maa ngi nii rek toog Gàmbi rek laqatu foofu noonu. Hmm. waaw Gàmbi gëj nga fa am combat. Gàmbi waa non yàggul noonu nag ma jógee sama combat leket ba tey bëriwaatuma nag. waaw maa leket ñoo mujj a bëre. waaw leket baara waaw. Ah. mais lan moo indi kaw waaw xanaa santaat yàlla rek di julli séenante bi sant sama ñaari waajur di nuyu waa Kaolack bu baax di nuyu tamit Gambie ga ma jóge di ñaan yàlla na fa jàmm yàgg di ko ñaanal Sénégal ndax ñun ay Sénégambien lañ waaye. moo gisee làmb fii Kaolack. waaw làmbi Kaolack niñ ko gisee neex na torop am na avancement comme li ma wax tey rek ma ne làmb Kaolack dañ koy xoolee comme làmb Gambie ndax parce que mën naa ne ñoo bokk tànk yi ñuy jéegoo ndax de ñun ñëpp dañuy ñaan yàlla làmb yi. mel ni comme dakaaru Ndiaye te yàlla baax na yàlla na yàlla def loolu noon ah. loolu gëj nga am ko euh, gëj nga am promoteur bu wax yow ci làmb. non di ma bëree ba tey nag promoteur yi ñu may song waa ah, man maa tegoon sama time rek ma ne damay xaaragum daal. noo dara dama jógee si combat rek combat bi metti lool bu bëri sot xam nga gars yi di ma sonal torop daal xam nga rek ma gis ni faa ma jël sama time daal moo tax ma toog ne xaaral ma xaaragum. sa revanche yaak Boy Balla daa mel ni am na ñu koy wax. waaw yi ñu ngi koy wax waaye taxawul nag because combat la boo xam ni sama gars yi ñii dañoo nang ñi nanguwuñ ndax ñu ne revanche bi dafa teel daal waaw loolu waaw dafa teel loolu gars waaye teewul ñu ngi ma doon proposé waat xoyantaan am na beneen booy bu fa nekk it buñ ma doon. Boy Balla lu tax mu yi ñu ne dafa teel. xam nga nag dafay daa mel ni Balla Gaye Modou Lo Sénégal. waa noonu la fa mel ndax wax dëgg fa yàlla champion la te booy bu am fit la te mën naa ne lamb Gambie mbëri ma fay sëgg di moo ma si gën a ñeme waaw waaw moo fa si gën a ñeme. mais léegi lan moo tax taxawagul ba léegi. sama gars yi ñoo nanguwul xam nga nag nit ku nekk rek moomoo sa bopp te tey dama dem ba tollu si làmb foo xam ne moomatuma sama bopp te am na ñu may jàppale ñoo xam ne nekkut làmb kon su ma demee ba dugg si dara buñ si nanguwul rek dama siy waxtaan ak ñoom mais buñ dëgëree rek damay bàyyi ndax bu dul làmb ñoo may jàpp non man buñ bëree tey sax suba ñu bëreewaat man a ma si problème waaye. jërëjëf waay. ñu ngi lay ziare. maa ngi leen di delloo ziar. ñu gis tey ñu fekk la Kaolack bëri nañ li ñuy dégg mbëri di la tudd relation bi nga am ak mbëri ak làmb lan la. waaw mbër yi man ñoom ñëpp laa njabootee samay frère lañ a chaque fois bu ñu soxlee conseil dañ may solliciter ma leen di conseiller ci àdduna ak seen carrière aussi bon loolu laa seq ak mbër yi ñu nekk sama frère bokk ci man tamit. mais bésu tey bii li tax ma ñëw Kaolack déjà Kaolack laa juddoo fi laa cosaanoo fi laa jàngee fi laa defee lu ne mais tey bés bi dafa nekk bés boo xam ne sama frère moo ko organisé muy Pape Mbaye ak euh, jàppandal production te jàppandal man maay diriger jàppandal donc bés bi dama cee war a teew pour mën a honorer au moins euh, sama présence ci bés bi waaw loolu moo newoon sama teewaay ci bés bi. digganteeg Baye Mandione. non Baye Mandione sama lépp la maak moom dañoo yàgg amul lépp lu muy dugg te ci waxtaan ak man lu muy dugg rek ci waxtaan ak man woo ma grand nan laa war def nii ak nii ma conseil ko ci loolu. waaw moom sama frère la dafa bokk ci man voilà. Mhm. mu mel ni bokk na ci mbër yi nga xam ni dañoom am humanisme quoi Baye Mandione. non Baye Mandione nitu kese la en plus il est il est il dans la vie sociale day def te du bokk booleeg wax. alalam du ko bokk ak kenn. donc moom nit koo xamante ne xam na xam na nan lay dundee ci àdduna bi quoi voilà moom nekkul mbër mbër rek de dafa nekk une personne choisie parmi tant d'autres donc moom dañ koy ñaanal lépp lu mu bëgg suñu borom defal ko si jàmm waaw ma Mandione moom nit la quoi waay. jërëjëf. merci mon frère. nuyu naa la. maa ngi lay fay sama mbokkum géwél sama doomu ndey. mais mais depuis combat bombardier bi dégg ñu leen waa Mbour lan moo xew. waaw dara xewul jàmm rek moo xew. bombardier dañ koy wax ne ko gàcce ngaalaama parce que doon na koo xam ne li mu def ci Sénégal mbir dootu ko fi gaaw a def le roi des arènes deux fois dem toj Bercy toj àdduna bi. toj foo mu nekk ñu koy wax Pologne def fa lu nekk kon bu yàlla dogalee mu am defet dafa war a ñëwaat ci dëkk bi si gi ñëw waxtaan ak ñun te xam ne moom la ñu am te xam ne def na fi lu te koo ñaawal. ñëwagul wala. non du loolu sax dafa nekk ci ay entraînement rek di préparer waat parce que xam nga ne am na combat moog Balla Gaye te ñu ngi koy préparer mi ngi nekk ci préparation yi mais day suñu lépp ñun ñu bëgg rek ñu xam ne lii nga xam ne moo ko dal ci eh, ci lii mu def joma ko ko jebe ak ngor ak fulla ak fayda. mais psychologiquement est-ce que défaite bi du ko jàpp pour combat Bombardier nitu jom la loolu mënu koo jàpp ci dara te dina fi def lu rëy nag incha allahu rabi ñu nag Balla Gaye ci ngay xam kan mooy Bombardier. Balla Gaye lay bëreel de. waaye Bombardier la fi fekk incha allahu rabi laa la wax di nga gis soo mës a gis incha allahu rabi. ñaata com ñaata naa fi quatre combats. am fi benn défaite am fi trois victoire war fee bëri nag le huit incha allahu am yow sëñ am man bëri na cent quarante combats. <laughs> koy jël si mu koy dóor muy xeex ak ñi koy jël si. te bëre simple la doon bëre. xool bañ la ngay xeex ak ñi leen yow doo xeex ak la doon bëre bëre simple. la pas Thier. sama maam sama maam la. non mais. Malick Niang ak Cheikh Diagne. Malick mu yéen mu. Cheikh Diagne daw jàpp na ko. Malick Niang suruxal na ko suruxal na ko doole doole doole doole doole doole doole doole doole doole doole Lamine doole la mag la Agogo jël na ko war na ko ndomba buddi na ko dóor na ko suuf Agogo moo daan de xam ngeen loolu xam nga ne Agogo daan Agogo mi moo daan waaw maa ngi ziar bu baax a baax waaye. tey da ngaa ñëw Kaolack. waaye maa ngi bu baax a baax waaw gannaaw bu ma sant yàlla sant Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam di sant sama sëriñ Ablaye Wade bu baax sant sant sang-sang yi sant sama sëriñ Ablaye Wade sant Ansa Nda borom dikku man ak Mbacke Samb ak ñoom Seydou Diallo président ASC Sam Sim Toro ñu ñu maa jàppale sama combat bi di ñaan yàlla bésu tey bi yàlla na mu yàlla sutural yàlla sagal ma dafa bëri wala daa mel ni bëri nga fi ndam de waaw wax dëgg sax am naa fi trois victoire Kaolack fi mosuma fee ñàkk te ñaan ma yàlla ñàkk fi tey moo tax combat bi tey waa ko waa Kaolack yëpp daal ma nii gis naa la sànq ngay ñaan dafa mel na ngaa ngemb waaw combat bi nag tey boo ñoree say sponsor yi yoo xam ne ñu jàppale da ngay ngemb. Ah, waaw waaw mooy As Ndaw Ndiku Man. yaa ngi waa Guyaar. waaw xam am na loo xam sant yàlla la quoi sa tur am na fu muy àgg da ngay liggéey ci société yi. Ah, moo la oh, waaw waaw sant yàlla quoi non xam nga ni man sama ma ne man ba may ñëw damaa damaa ma ne comme ni njëkk bourgeon liggéey si ñoo xam ne nii dañ may am déet waaw man nag maa ngi ñaan yàlla yi gën a yokku sponsor yaaw yi gën a yokku ngay wax ak man fu may xëy bokkul de promoteur joxul yi yëkkul production jox ma lu dul sur signature contrat ba pare benn booy ne ma yaa may ma ko ma ne ko noonu mënu ma laa may euh, ensemble mën naa la jox tubéy bi daal di dese yére bi comme ni ñu naan ba fi joxuñu ma kii nag xam fekk yii dama ko doon entraînement yi ma jox ko sama gars ma leen solo ñu dem loolu dara am déet ah. waaw ah, soo yee nag moom noonu. mais Tonnerre. na mu nañ la. waaw maa leen raw doom nday ah. waa waaw maa ngi nekk sama ruq rek maa ngi sama doom nday ñu liggéey rek. Ah. waaw yaa indi yaaw tey. maa ko indi di ko ñaanal yàlla yàlla may ko ndam lu rëy. su fekkee fu mu toll maa ngi si ko Babou Ndione mi war nañu mën a ñëw ñu bëree. mobile 2 suñu combat yàqu na waa ji dëggaat comprendre nga yëpp ay combat yi neex la man dama nam bëre Kaolack. mais ku leen ne yàqu na combat yi non parce que gars yi amuñu jot bi pour nekk ci. suñu gisee keneen ku si mën a nekk dañuy jël daal. mais déggaatoo wax ay mbër yoo xamante ne arrangé wu ma mais jëlaguma ma. nañ wax ay daal ay ndabar rek lañ ma doon expliqué ay ndabar rek man maa bëgg a jël benn ponkal fii Kaolack wane bi sama bopp. waaw bëgg nga bëre fii quoi. bëgg naa bëre fii si barki Seydina Mohamed di sant as ndax borom dëkku man moo waral lii day namuñu dara waaw. waaw kon blouson yi dox na quoi. waaw as ndax borom dëkku man ndaw saa man ndaw laa sant. du ma gisee ku sant ndaw dama siy fer waaw moom ndaw la sant man ma sant ndaw tey namuñu dara suñu regroupement waaw. jërëjëf yaa kon boog yal na seen télé bi réussir waaye nag waaye jàppandal production du kenn ku dul ñoom ndaxte ñoom ay champion lañu te tur Gaston Mbengue fu mu àggoon ak Ligue Nicolas ak Petit Mbaye ak Serigne Modou Niang yàlla fa turam àgg si làmb te yàlla na ko yàlla fayee si xolam moo tax ba ma ak yaaw ñu ngi maa ngi sant. tey yaaw Dial bu bu moo jóge ba Dakar ñëw pour bëre ak yow loo ci wax. ah yow Diagne ñoo ngi jógee Dakar tam ñëw ndam rek laa bëgg si moom daan ko rek jël bu laa bëgg daan ko dam yóbbu. yóbbu mel ni revanche ngay jël waa Kaolack waaw. revanche ngay jël. yoon. Ah. premier combat ma la woon. mais yow ñaata am. man am naa premier combat am naa dix combat benn ma signé benn benn benn def benn waaw maa daan waaw yow yow champion nga waaw waaw yàgg na boobu na quoi. Ah, waaw yàgg na fii Kaolack quoi mais boobu ah, jamono yooyu ah, xam yooyu boobu amul xamu woon na làmb dina demee nii kon dañuy dem di wax ni ay làmb dina am ni mbër ñaata mbër ngay daan ak affaire xam nga léegi nag comme jamono bi léegi moo xew léegi comme mbër bu daanee dañ lay laaj ñaata combat nga daan comme dañ lay wax boo da wax lu. mais kon combat ëpp na 10 waaw comme ëpp na diis waaw. combat diis la ñu mën a jàpp quoi. waaw moom laa jàpp waaw. xanaa grand yaa menacé. waaw. waaw nekkal ci jàmm. waaw. Ah, ma daal fay naa sant bu baax. da nga ñëw wane sa bopp wala da nga ñëw fii pour may xale yi chance. non dama ñëw Kaolack pour wane sama bopp. waaw du maye dama ñëw Kaolack pour wane sama bopp ndax mbër lañ bëre moo ñu jik quoi ñu tëgal ñu combat ñëw bëre si. bëre fudul Dakar yomb na. non yombul ndax ba mu ñëwee métti na trop ñëw nañu bul dugg gars yi policiers yi téye ñu ñoom. lan moo nekkoon problème moom lañ kii dañ ko doon liif si bop xam nga te ñu dañoo bëggoon dugg ndax Dakar bu la neexee duggee porte bu la neex ñu dañoo ñëw dugg policiers yi duñ dugg si biir géew gi xamuñu ne lu ko waral. ndax lamb dépassé organisation rek. non lamb dépassé na lii. lamb dafa dépassé lamb ak Dakar ak fii bokkul. waaw wante ñoom si Dakar la ñuy jàng si Dakar la ñuy jàngee. président président CNG bi. moo nekkoon fii président bi comme nag ko jëlee yóbbu fee ñoom waroon nañu waroon ñoon tiré foofu noonu ay leçon quoi di rafetul quoi ñu rafetul. mais looy wax ci combat bi. waaj nañ ko ni ñu ko war a waajee waa grand mbooloo bi ñëw nañu waaj jàppale ma si combat bi combat bi ndam rek moo ma si dig te ñaan yàlla yàlla ma si yàlla may ndam. bu ñu ñu xoolee sa état de forme dafa mel ni waaj nga combat. dañ nañ ci coono gu méttee dañ nañ ko si waaw. bu métti dañ dañ nañ ko si combat bi. jaajëf bonne chance. waaw tuus bi engagé ko. waaw man xëy xam ne man ngéwél gi du dañ man bu làmb ji yëngatoo rek ma yëngatu. waaw loolu am na moom. mais naka mu. sant naa yàlla bu wér. noo gisee làmb kaw la. waaw neex na trop wax dëgg yàlla guddee bi kay la ñuy jooy waaye neex na lool. ambiance baa ngi fi làmb jaa ngi fi wax dëgg yàlla. prévoir nga ñëw bëre fu mel ni fii. waaw mais pourquoi pas ñun fii dañ fi am ay nit. yee suñu gaan fii la féete Mike ñeneen ak ñeneen ak ñeneen. yee mooy loolu ne. sant nekk ci préparation bi. préparation ah sama bopp entraîné. entraîné yee bu baax. am déggoo ko combat. non non. Hmm. léegi euh, États-Unis bi nga demoon. combat bi am sa ginnaaw nga dégg wax ji ak coow yi mu jur lan nga ci wax. waaw dara maa ngi doon déglu wax ji instant ma nekkee feene chaque jour vidéo yi dugg yëpp maa ngi doon seeraat maa ngi doon ree rek mais mooy li ma wax bi ma ñibbisee rek lu waay waxoon rek amal ngor ba ne yaa ko wax bu kenn dellu ginnaaw. bu si nekk téyel fi nga téye. yow lan moo taxoon nga toog foofu combat bi ne. sama coobare bopp la nag man la neex mu leer kaw ba ci suuf waxuma kenn baal maax lu waay waxoon téye ci. lan moo yal mbin bi ñibbisi na lu waay waxoon téye ci. nooy jëlee avance jàmbur naan man la neex. du loolu lañ wax làmb ju daa am ñu ko tënk muy CNG. waaw ku fi def loo warul def dañ lay teg ci yoon. kon da nga da nga def loo warul def. non dama ne ku fi def lu warul def dañ lay teg ci yoon lu waay waxoon téye ci na yaa ko wax bu kenn dellu ginnaaw. da nga jàpp ne yaa si dëgg wala xaw ma de mais lu waay waxoon bu ci dellu ginnaaw. mais li ngay wax ni fan nga ko teg laa bëgg a xam. fu wóor. ah ci lan. ah ci expliqué ñu parce que mënoo jël avance su jàmbur dem États-Unis toog fa ñëw di wax comme ni nga waxee ni mel ni yow yaa nekk ci. dinaa woo Sidi yëpp ñu toog ñu waxtaan bu mbër amee combat ñu régulariser ko CNG. mbër mi toog ñëwul bëre si coobare boppam CNG da koy aj loolu ñëpp xam nañ ne règlement la bu mbër amee combat ñu régulariser ko CNG mbër mi ngeem bu ñëw ba stade te du kenn ku ko wax ne làmb ji amul am na ku ñu war a aj lu waay waxoon téye ci bu ci dellu ginnaaw. làmb bu njëkk ba nga jàpp ni ci la. bu njëkk beeg bu mujj bi. lu waaye waxoon tee ko bu ci dellu ginnaaw. dañuy waxtaan man ak yow. mais da nga jàpp bi nga ngemboo ñëw da nga jàpp ne jour boobu nga wàccoog promoteur bi. non man wàccoo ma kenn man bëree rek laa bëgg bu ñu buggee ma fay leen bëreel leen ñoom ñoo ay problème mu xaalis nekk naa Amérique dégg ñu naan daa jël avance su jàmbur daw barki Seydina Mohamed oto laa yor may ñibbi Ndakaaru yàlla naa des si yoon bi seen avance mënul dagg sama bee avion. barki Seydina Mohamed bu may ñibbi yàlla naa des si yoon bi seen avance mënul jënd sama benn téléphone. billaahi wallaahi wa taalaahi yàlla bu ma yegg Ndakaaru bëgg leen a dimbale moo tax ma leen di bëreel. bu ñu bëggee ma dool leen xaalis bëreel leen mais fiñ ko teg dama damaa bëgg ñu si reculer maître nañ ko fa téye ba mu dëgër. yow nga ne yaa nekk si dëgg. nañ ko fa téye rek force kenn day jégalu kenn maa la wax lii man mobile nañ téye fi ñu téye bu ñu bàyyi. mais ci wàllu ci wàllu këyit wàllu contrat jàppoo ni bu ngeen demee ci wàllu contrat yow amee loo ko. foofu laa la wax foofu laa ne bu kenn wàllu këyit boobu bëgg ñu téye ci ba mu dëgër en tout cas nag am na ñuy tàmbalee jégalu mais bu kenn baalu na ku nekk téye fi nga téye rek ñu doxal sa manager daa am wax boo ci wax biñ la waxee sa manager dañ ko aj lan moo tax nga waxee noonu. dara parce que sama waay la sama père la sama gaañ la yaa loolu mun nañ ko ci moom quoi. jërëjëf kontaan ñoo far ñoo far jaajëf. Dakar ba tey ñaari mbër yaay Leewtoo yaawoo ngi yaaw daa mel ni mi mi mi ngi bëgg combat bi jeex na. waaw xam nga yaaw moom duy bëgg combat am yàgg yenn yàggaay yi parce que boo bàyyi xel yi nga xam moom la bëree moom day ñëw rek free dem yoonam wala lu am jël waaye tey combat gi dafa mel ni ko jaaxal la. na ngemb de wëndeel na ko de woy yaay kuy daanu oh yaaw jaal Dakar daan na ko. yaaw na yaaw Dakar daan na yaaw kaw la lii mooy fair play lii mooy lamb dama les ko ñaari tur les les. lii bi gaaw la wax la kii sama doomu ndey kii damay ñaan yàlla autorité waa Kaolack yi damaa bëgg ñu ñu jàppale yaawu jàll bu may ko kër defal ko teranga ñu embauché ko man na kii Macky Sall laay sas ak Marème Faye Sall Mariama may na ko mu jóge si location dafa sonn sama waay la yaa ma nekk kii Macky Sall laa koy booleel ak Marème Faye Sall yaa ma nekk ak madame le maire ñu may ko kër ñu ambas ko muy liggéey dara yàgg na si làmb ji kii kër moom moom si alex na ma paa bi jënd kër gi nekk seen face kon bu duwoon loolu noonu kon loolu du ma ko am moo tax kii ko ñaanal yàlla yàlla yàlla gudd lay faram yàlla na ko may jàmm ak waa Guyaar transport sama sama sponsor yooyu ak ñoom la wax ci ni nga bëree. waaw c'est nga xam nga Ousmane comment moo ne yaaw bu nekk làmb ji bëreel. waaw mais sama wàll moo tax nga bëre ba deuxième mi-temps. waaw non c'est que dama ne dama bëgg neexal affaire rek xam ngeen ma. xam ngeen ma xam ngeen ma gaawul. koo soxla nii. waaw léegi am na yenn boy yu soog a débuté ñoom xam nañ ma bëri na quoi bëri na gis naa Lirou Diane fële. Lirou Diane nag moom laa soxla ma jox la 10 000 dóor la diggante Feugeula ak Lisaan Feugeula moo amee ngemb bu weex bi wuy yoo diggante Feugeula ak nga xam ne moo jox ngemb lu ñuul lii Feugeula ngay dafa mel ni Lisaan tànki Feugeula la waaye Feugeula ngay ñoom ñaar la bëre dóor la ñoom ñaar diggante Feugeula ak egun eran ñaas la si kanam sël mu taxul mu deñ tey da ngaa baax bu la neexoon mën nga na maa jig jigi seeraat du ma dem saa yoo ñëwee ma daan Modou Mbaye na toog waaw. mais Modou Mbaye nee na bii di ñëw bu mu ñëw ma delloo avance suñ ma joxe avance Modou Mbaye ñëw ma delloo. mais yow dégguma ne da ngaa lekkoon avance beneen mbër beneen mbër bi lekkoon naa avance am di wax naa nga saa suñu waa koñ bi ma delloo ko ñoo la ma delloo ko mais ñeexu nan waa koñ bi kenn faralu ma ñëpp dañ ne ma la mën. ñun loolu lañ mais maa ngi sant yàlla julli ci yonent bi di sant sama yaay bu baax di ko ñaan gudd fan ak wér ak wér la bàyyi seexu si soxo bàyyi maa ngi koy nuyu Seex Moussa Soxna di nuyu sëñ Birane Gueye ma ca Mbacke di nuyu ñëpp Ablaye Fall loo koy Ablaye Fall Ablaye ah sama coach Ablaye Fall Ablaye Fall kenn du yow dama ñëw si Cap Foire laay Dieng jël ma yoral ma boppam Ablaye Fall doon sama coach kon ñeexu ne mënu maa téye victoire bi nag lu am importance laay wax Kaolack ni mel yàlla ni ma bettee biir victoire ni xéewal yàlla na ko bettee ci élection maire mu jël maire bi ci kàttanu yàlla ak Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam. léegi koy laaj. ki may laaj Lirou Diane mii laa soxla Lirou Diane mii laa soxla. non nga ne mu ne. yow laa soxla maa yaw yow Kaolack yow laa soxla man mi daan ñeexu leen yow laa soxla yow. bàyyi ko bàyyi ko bàyyi ko bàyyi ko bàyyi ko bàyyi ko liiru loo wax ci loolu. loo wax ci loolu waxuma jël monsieur le maire monsieur le maire ma yàgg jàppale moom tamit di sant Mbaye Ngom sama nijaay. waaw après damay ñëw ci Père Mangone. conseillé ma conseillé ma. Mbaye Peex lu mu la wax. Mbaye Peex ma. ne ma ah ki ngay ponkal la mais nag juuloo ko boo ko juuloo daan loolu la def mais Ablaye Dieng kenn du moom. Mbaye Ngone nee na ma barke borom Touba Mbacké boo ko juuloo daan ko. bul bëre bëre Lac de Guiers bëre ma bëre Lac Ablaye Ablaye Dieng Ablaye Dieng kii dama yóbbu Dakar jëlal ma néeg jëlal ma lépp fayu ma lekk fayu ma naan lamb ji mu yëkkati xaalis bëri jox ma jox ma lu bëri ba bari na ma di nga daan demal war ko ci Baye Niass dama di daan xoolal di gërëm kii nii monsieur le maire ñun ñëpp ak Mbaye Ngom Serigne Mboup yàlla na jël maire bi ci barke alqouranil karim Serigne Mboup Serigne Mboup Serigne Mboup yàlla nga jël maire bi Serigne Mboup ñu ngi lay ziar waaw ñu ngi lay fay am journée bu mel nii nga tëgg ko pour une première fois mu mel nii lan nga ci wax waaw kontaan rek di wax ne lépp kii la rek parce que tey bu ko nanguwutoon du demee nii waaye nag olof day wax ne bés du tuuti borom lay tollal ku gis lii nu mel nga xam ne borom bés bi moo toll noonu ndax nit tout le temps da ngay posé sa bopp xam loo jëriñ kii ku ko gis xam ne Kaolack bëgg nañ ko. lu tax bi dem ci moom. waaw parce que dañoo gis lu muy def Kaolack. ñu ak moom dañoo bokk ay idée mooy dafa bëgg Kaolack di def social Kaolack mu ngi joxe ordonnance mu ngi ci sëriñ si mu ngi fépp mu ngi ci mbënd mi mu ngi def lépp ñu xam ne kii ñu ak moom ñoo bokk yoon ñu ñëw tàllal ko loxo ne ko président yow lañ soow yow lañ choisir premier journée pour nga jàppale Kaolack mu ne nangu naa ko ak xol bu sedd guy dèjà loolu ku la ko wax rek amoo fayam moom loolu moo waral première journée bi. ok gannaaw bi yenn yeneen moo am. waaw ñu ngi ren ren incha allah bëgg nañ tëgg 4 journée. bi mooy première journée de lutte bi ñu ngi war a liggéey ci yeneen làmb incha allahu rabi. Hmm. jërëjëf jërëjëfati. mais ñu ngi ziar. ñoo la koy delloo. biir stade lan na noo gisee làmb. kontaan lool stade fees na dell macha allah macha allah macha allah lii tey dafa wane ne daal tey Kaolack Ndangaan moo nekk euh, capitale euh, culturelle capitale sportive ndax tey lamb ji tey Kaolack mooy polariser toutes les attentions macha allah loolu nag suñ ko amee. gannaaw euh, yàlla ak jëmm ji moo tax xam nga nag ñun bu ñu nee dañuy politique dañ ne dañuy politique ngir jaamu soxla askan wi askan wi am na ñoo xam ne ne wér-gu-yaram problème wér-gu-yaram la ñu ñoo xam ne ne problème financement la ñu am nu ñu amee noonu la amee ñoo xam ne nag seen problème ak seen soxla yëpp affaire sport la moo tax yoon la soo nee ne da ngay politique nga taxaw ci sport parce que ku nekk ak façon problème bu mu am ak façon bëgg-bëgg bu mu am donc yoon la ñu diversifier suñu action yàgg yàgg nañoo déggee ci affaire sociale yàgg ñu dégg ci affaire art tey nag dañu dégg ci affaire sportive comme ni ñu ko yàgg di defee donc loolu moo waral tey jii nii ñu ñëw ànd ak waa jàppandal teew ci euh, ëxlu làmb ndax am na ñoo xam ne son soxla yëpp làmb la. ni stade bi mel dalal na seen xel ci li ngeen jëm. waa alhamdulilah alhamdulilah dalal na suñu xel ci mais waxantuma dara sax mais lépp dafa rafet dal. macha allah organisation bi jaar gis ñu fi benn càmbal càmb stade fees dell dafay wane ne askan Kaolack namoon nañ làmb waaye lu ma gisaat tey mooy gis naa fi mu bëree bëri rafet yoo xam ne ne bu Tyson bàyyi làmb ñun waa Kaolack dañ doon jooy di yaakaar ne dootuñu am champion mais xam naa ne mbër yi ma fi gis luñ fi bëri nii ku leen toppatoo ku leen jàppale am na ñu am fi di Tyson ñu ngi fi macha allah mais nag chapeau ak waa jàppandal am na yoon. jërëjëf jërëjëf. ziar bu wér a wér a wér waaw. ñu fekk lak Kaolack tey noo gisee làmb ji. ah làmb ji ni ma ko gisee sama xol dafa sedd ndax kin ko kii tëgg làmb ji muy sama doomu ndey di saaxo sama doomu ndey saaxo tëgg làmb ji. ah su defee bis bu mel nii Kaolack gépp génn kon na laa mu dekk na Kaolack mu tourné tuddee ko Mamadou Benso Loum waaw muy futur maire à Kaolack vraiment sama xol dafa seet ndax Kaolack man damay sawar a ñëw ndax sama maître Ndiak ba fii la dëkk sama avocat ba tey jii mu ñëw Kaolack nga xool soo xool li xam ne laa mu dekk na te sama doomu ndey sama patron sama xarit moo doon dëkk tey Dakar muy jëy seen ma bàyyi ko fa ñëw kon nag am na lu ko waral di féliciter sama rakk ja tamit Jackson ndamam lu rëy li yàlla na ku jik te xalel daa nekk si yoon yàlla na ko yàlla jàppale vraiment kontaan naa ndax sa waay dafa ma doon décorer fii ci làmb ji tey dama doon décorer waaw ma kontaan ci lool kanji tamit fii la dëkk ànd ak moom ku baax nekk sama xarit kontaan naa daal sama xol seen décoration bi dafa seet sama xol ndax jëy dafa na ma dama waroon bàyyi sama ñëw ànd ak yow ci bi ma ne ko noo toogal seere bàyyil sama xol daal seet na Kaolack maa ngi nuyu waa Kaolack ñëpp sama xol seet na jërë ngeen jëf. Cheikh Diagne moo moo moo gàtt te ñuul exemple nga ne Lamine Cheikh Diagne ay ay 7000 nen yooyu la yor. ah. waaw waaw moom la dóor nen bi de moom la dóor nen bi de moom la dóor nen yi de Malick Niang ak Cheikh Diagne. daa mel ni Cheikh Diagne gën a nekk xale. non Malick Niang kay daa mel ni moromu moromu sa ma Pàcceer la Pàcceer. sama maam sama maam la. non mais. Malick Niang ak Cheikh ah Malick Niang gëdd waaye demul seex nag su ma sama combat Malick Niang mii du seex defal différence xanaa Kaolack amul ay diin Lamine ay ay diin xanaa amul Kaolack ay ay diin diin ay diin est-ce que am na fi est-ce que xanaa tànk yi nga xool pourtant ki tànk baax na de waaw mais da ngay wax waxuma Cheikh Diagne waaw Cheikh Diagne Malick Niang Malick Niang Cheikh Diagne nag yow ku sagar nga ku xool nga ba Malick Niang fekk la fi ah xalaas ñoom ñaar ñu ngi lewaatoo Malick Niang Cheikh Diagne so bebe muy kër maam jambaan ñëwal nga tuus se Diagne dugal na arrêt de droit Malick Niang dóor na dóor na Malick Niang nañ ci biti ah ñaari mbëri jàppante nañ bàyyante nañ kaay leen taxaw ci géew bi mu yéen kooku Iba Mara lay way de i bambara mu baax mi suñu suñu xarit bi maa ngi koy béggee bu baax a baax i bu bambara borom Kaolack Mungu baba na Wilmeri. Cheikh Diagne yow moo war def yaa ko def bëreel. Malick Niang dóor na dóoraat na daw na jàpp na ko. ah Malick Niang suruxal na ko suruxal na ko ah doole doole doole doole doole doole doole Lamine doole doole doole doole Lamine doole mag la mag la mag la kii kay muy dégg ba tey mbokk yi nuyu nañ leen moo fi dajale woon tey mbooloo mi fii ci kaw la diggante plaqué ak Nandi Fall ñu ñaari mbër yaa ngi lewate waaye kenn ku ci nekk bu ñu bàyyi xel est-ce ki nga xam ne nii ne mooy plaqué amul li nga xam ne mooy benn woonin diggante plaqué ak Nandi Fall ci garaakomba déplaqué ak Nandi Fall ci grand combat bi ba tey. déplaqué dafa mel ni mu doon def avant arbitre bi sifflé defatu ko nag. waaw xam nga moo tax loolu est ce que nekkul ne da doon seet da doon natt booy bi. da ko doon napp. waaw da ko doon napp loolu la doon bàyyi xel ndax ko nappee na booy bi na ko fekk seen déet. Lamine Nandi daa mel ni indi na état. waaw mu ngi ci waaye ndax xel mi dal na. ak ci lim jóge defet yi nga xamante ne moom la tegal. parce xam naa ni daf koo bi. waaw loolu laa wax adversaire bi mu ko waaye nee na na fii du génnu kaayam. fii du jëm kaayam. génn génnam génn. Ah, moom du génnu kaayam. waaw waaw. combat bi arbitre masinil masinil masinil bi jeex na dañoo masinil lamb ji loolu la masinil monsieur Youssouf Benjeloum ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay fay sëñ bi di la dalal jàmm fii ci Kaolack Ndangaan di leen jox seen wàccuwaay ñu ñëw fekk la sa dëkk tey mu mel ni da nga ànd ak benn mbégte waaw kontaan dama kontaan loolu parce que euh, honneur bu rëy la waa jàppandal production jël ma def ma parrain seen première journée bi nga xam ne ne c'est un une série de combat yoo xam ne ñoo ngi ko bëgg a organiser fii ci Kaolack bés bu njëkk bi ñu jagleel ma ko mu nekk honneur bu rëy ci man nekk fierté bu mag a mag ci man loolu moo waral mbégte bii nii. yaa ngi mais drapeau sa dëkk ban ban ban sentiment nga ci. waaw day fay gën a renforcer sama fierté rek comme nu mu la ko waxee yàgg nañ mu tuddee drapeau Dakar tudd nañ ma fa drapeau mais tey ñu ñëw tuddee ma ko sama dëkk sama kontaan dafay gën a rëy. ndaxte suñ neen diw baax na rek na fekk ne mbokk yee ko wax te mbokk bu ci gën mooy dëkkandoo te samay dëkkandoo tey ñoo mu tuddee donc mu nekk distinction bu rëy ci man loolu moo gën a waral tey ma kontaan ak mobilisation bu mu fi gis mu nekk journée boo xam ne ne macha allah riche na en son et en lumière yéen a ngi dégg ngoyaan yeeg lépp nga fi dégg li yëpp rek nekk euh, cosaanu Kaolack ndàngaan ku xam Kaolack xam ko ci ngoyaan xam ko ci euh, teranga gu mel nii donc mu nekk lu rëy daal bés bu rëy ma kontaan ci trop di ko delluwaat njukkal mbokk yi nga xam ne teew nañ fi yëpp sama xarit yeeg sama militant yëpp waa Kaolack boole ci nag tey tamit euh, dafa nekk bés spécial parce que tamit sama kenn sama garde yi muy fëgg la dafay dafa bokk ci combat bi donc moo tax tey mobilisation bu rëy bii nii mu am si Sam maanaam daal c'est une fête pour la jeunesse c'est une fête pour Kaolack c'est une fête pour Saloum maa ngi ñaan nag euh, ñu dugg ci bisimilah rahmaani rahim terminé ko alhamdulilah euh, rabbil alamin. ñu ngi bi naka la. Mouhamad Macky Seck Medina Baye petit fils de Baye Niass. ñu fekk la ci bésu Youssouf lan nga ñu mën a wax ci moom. wallaay ñu ngi sant yàlla bu baax di nuyu leen kilifa yu fi teew di nuyu tamit suñ kilifa Medina Baye yi nga xam ne lépp lu ñuy def ñun dañ koy def seen ndigal muy suñu xalifa bi ak suñu imam bi ak suñu porte-parole bi. ak mboolem njabooti Baye Niass gi nekk ci Medina ñu ngi leen nuyu ak mboolem waa Kaolack ñu ngi sant yàlla bu baax ñu ngi ñëwlee suñu candidat suñu leader muy Ahmed benn Bengelou ñoo xam ne yàlla moo ñu boole mu nekk taalibe Baye ba pare yàlla boole ñu ci politique ñi ànd ànd bu rafet wax dëgg yàlla ñu tuddee ko tey bés ñu am contentement bu rëy rëy ñëw fas yéene ànd ak moom gunge ko ci bés bi. waaw di nuyu ñëpp waa Kaolack nangaan euh, di jëte ci nuyoo bi nga xam ne mooy xalifa Médina Baye sëñ Maye Niass euh, ñu koy nuyu bu baax a baax ak xalifa Léona bi sëñ Cheikh Tidiane euh, di nuyu daal mboolem waa Kaolack parce que li ñu tax a ñëw tey dafa nekk loo xam ne suñu yëf la mënuñu wax ne sax dañoo invité rek ñu ñëw donc ñun nag dañu nekk Kaolack nekk ay ndawu Kaolack euh, nekk ay jeunes Kaolack yoo xam ne dañoo gëm Kaolack gëm na tamit Kaolack changement am jot na te ñu ngi koy yaakaar si ñaar ñii mooy euh, Youssou Bengelloune ak Serigne Mboup man nag ma nekk jeune boo xam ne dama jiite benn mouvement bu ñuy wax mouvement NATCA nouvelle alternative pour le développement Kaolack mu nekk mouvement boo xamante ni jeune Kaolack yëpp a ngi si bi loolu amee ku mel ni Youssou Benzouloum sama xarit la na ma kaay ñu liggéey kaay ñu ànd jàppale sëriñ ñu mën a gere Kaolack jéem a génne doomu Kaolack si jafe-jafe yi ñu dund rawatina ñu tuddee ko tey lu mel ni làmb mu woo ma wax ma ko ma ne ko loolu damay sol suma daal la jógee dakaar ba fii maa ngi yes fii presque ay 14 heures laa fi yegsi mu nekk nit ku baax nit koo xamante ni wax dëgg yàlla man aw ma fayam lu muy dugg boole ma si Euh, mu nekk nit koo xamante ni nit ku gëm Kaolack. xale bu mel nii bëgg goxam bëgg réewam ànd ak kan Serigne doomu daara di dox ci ay social ànd ak kan Mohamed Ben Saloum waa Kaolack Youssoufa Ben Saloum man Mohamed Rada benn la. tur maanaam turu mag nii macha allah bu nga ko joxee mu nekk président conseil départemental. billaay wallaay Kaolack saase. barki Rasulullah loolay am Kaolack saase ndax moo fi nekk te xale yi moom lañ bëgg. tubaarikàlla mi ngi jàppale nit ñi mi ngi ci social mi ngi ci lépp ay Mouhamed Bengelloune ah Mouhamed Bengelloune lii neexul. bu ànd ak kan Serigne Mbow. moo nekk Serigne Mbow. waaw ñu dana wuli ba mu nooy waaye neexul. ñu dana wuli gars yi ba ñu nooy. li neexul. futur futur président conseil départemental na ko Kaolack gépp jàppale. keneen ku ñëw man anuma kenn ki la àndal. Eh. yow kii nga àndal ah, ah. Kaolack gépp ànd ak kii mu gagné. 100 pour cent. kanam nga ñu mën a wax ci bés bi ak ki ko tuddee bés bi xanaa di sant yàlla rek bu baax di julli ci sangu-sangu yi Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa di wax alhamdulilah rabil aalamiina te di wax laaw la cat ci ki ñu ko tuddee ndax dafa nekk koo xam ne lu ne la mérité waxuma Kaolack rek mais dafa mérité lu ne ci senegaal dafa nekk ci doom yi nga xam ne. dañuy jëriñ seen askan mais pas ñuy jëriñoo seen askan depuis mu judd ba léegi ci jom xam yaru diine fulla fayda bëgg nit gëm boppam li koy naqadi ci Kaolack bari lool mu ñëw jël mouvement am di social politigul woon de kii xamul sax politique soo ko xoolee sax xam ne du politicien social la doon def lépp lu mu yëg ne naqadi na waa Kaolack suba ba ngoon jot lam ca man ma ngi ko cay def ma ngi ci sëkk taataay